yoon dafa désigné woon benn laboratoire boo xam ne faw mu def contre expertise bi ndax ñu yooyu nga xamante ni moom yoroon ba nga xamante ni suñu avocat ci la sukkandiku ba plaidoyer ba am ci dëgg analyse yooyu ñu yor institut Pasteur moo ko defoon institut Pasteur moo ñu defal analyse yooyu bi nga xamante ne tribunal désigné leen pour ñu def contre expertise boobu institut Pasteur xam nga ñoom multinational lañ ñoom France lañ bawoo seen eau gi France la bawoon la bàyyi ko kon ñoom am nañ ay intérêt commun fii nag intérêt yooyu nag tax na institut Pasteur lànk ba kàndaaral ne du def liggéey boobu nga xamante ni réewum Sénégal bi nga xam ne ñoom ñoo ko dox licence dañuy liggéey ci dëkk bi au nom du peuple suñu sant leen liggéey boobu ñun lànk dañ ko def ngir ay intérêt léegi ñun dañuy laaj ñun xanaa nañu dañoo amul indépendance loolu la ñuy laaj léegi nag loolu lañuy ñuy loolu la ñuy déplorer ndax loolu tëgguwul ci yoon tëgguwul ci dëgg te xeex bi bi nga xam ne dañ ko yëkkati bi nga xam ne xalaat nañ ko dañoo dem waxtaan ceeg suñuy kilifa tàmbalee ko nag sëñ Abdoulaye Mbacke yàllaay bu yàlla na ko yàlla yërëm te yokk ay leeram nga xam ne biñu moom biñu waxtaanee moom boobu bu woon teg leen xeex ci suuf dañ koy def ci suuf waaye dafa wax ni comme ñun contrat lañ ñoom dañuy jënd te ñun li ñu war a li ñu war a respecté ñoo ngi ci ndax ñoo ngi fay Mbacke moo dakk fay ndox ci Sénégal ndax nag comme demee na noonu ñun ñoo ngi fay te ñun saytu nañ ndox mi ne xam di baaxul pesum kanam borom rek moo koy fajal boppam sëñ Abdoulaye Mbacke yàlla bi moo ñëpp wax loolu te ñaanal ñu lañ dem seet sëñ Dili xalifa sëñ Modou Mamoun naka noonee moom lañ dem seeti sëñ Cheikh Jëm Fall ñooñu ñëpp yàlla na yàlla yërëm sëñ Cheikh Jëm Fall yëmul ci encouragé ñu waaye dafa bind lettre d'encouragement di wane ni kat lii ngay def moom kontaan naa te yabal naa leen naka noonu kilifa yi nga xam ne dañoo ne ci Mbacke ñëpp saa bu ñuy def réunion kenn ku ci ne da nga yónni sa njaboot ñu fekke ñu fekke ñu fekke jataay boobu boo ñëwee Mbàkke Xewar sëñ Maara Mbàkke day ñëw si jataay yi suñ see jëmm yëmul maanaam daf ñoo boole secrétaire am sëriñ Assane Fall sëriñ Ousseynou Fall sëriñ Kamal Fall sëriñ sëriñ Kamal Mbàkke kon Mbàkke couche yëpp dañoo and ci lii nga xamante ni moom la ñuy def dañoo dem ba seeti ñi nga xamante ñoo fi nekk tijaan waxtaan ak moom ñu ànd ci dem nañ ba nga xamante ni ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñoo fi nekk église bi waxtaan waxtaan ak ñoom ñëpp ànd ci gépp joxante loxo bokk nde bokk baay ngir ñu affronter lii nga xamante ne nii daf ñuy rey di rey suñu ndey di boo xoolee moom moo nekk à l'origine de toutes ndox moomu moom lañ bëgg mu jóge fi ñeenti point yooyu lañ doon xeex combat bi daal fi ñu toll nii mooy faw ñu def contre expertise Sen'Eau euh, nag état du Sénégal mi ngi jéem a solutionné ndox mi def na ñeenti juróomi forage def na ko Sadio ak ñaari château fii ci Mbacké 2 ñaari château yi benn bi mu ngi jël 2000 mètres cubes d'eau beneen bi mi ngi jël 1000 mètres cubes d'eau par heure benn bi bu war Mbacké la beneen bi sax Diourbel da ci profité amaale ci ndox kon jàpp nañ ni fii gën ngaa gën ngaa yàgg 6 ba 7 mois ndox mu neex mi ñu dina.